gis ngeen ko euh, Cheikh Mouhamed El Fadel euh, def na julli gi nga xamante ni ci ñaari raaka la waaye ci teewaayu xalifa général des Mourides ginnaaw bi mu jullee ba noppi def na discours waaye xalifa général des Mourides itam def na discours boo xamante ni xëy na guddul lool waaye xayrul kalaam a xalla wa la euh, am na ay njàngat yu bëree bëri yoo xamante ni mën nañ ko ca dégg ci suñu kanam Oustaz Abdoulaye Diop di kenn ci daayira Muxaddamatul Xidma Oustaz Abdoulaye ginnaaw bañ la nuyoo di la ziar baax di la ci feet gi Euh, discours bi nga xamante ni xalifa général def na ko xëy na euh, yaatu na mënoon naa yaatu lool waaye ci ak gàttal ñaari baat lan ngañ ciy mën a euh, jàngatale ci biir discours boobu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooleem téléspectateur Rafah TV di leen ndokkeel ci bis bi ñu nekk di Aïdul Adha al Mubarak di ñaan suñu borom mu fekkeloo ñu ko ay at yu bëree bëri te nangul ñu jaamu yàlla gi di jiital ci nuyoo boobu nag Cheikh Mouhamadul mi nga xam ne moo toog jotaayu Cheikhul Khadim Cheikh ni nga ko waxee tey julli ayit gi macha allah taw fexe na trop ndax sëriñ Falloum Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ne moo jiite julli gi bi mu jullee ba noppi niñ ko baaxoo defee jël nañ kàddu gi jëbal ko sëriñ bi sëriñ bi joxe ay ndénkaaneem waaye jàpp naa leen ndénkaane bi mu joxe tey nag bokk na ci ndénkaane yi nga xam ne moo gën a matale ndax juñu nga ko mooy wax ji gàtt na waaye lamboo na lépp diine ndax fi sëriñ bi tàmbalee rek ci gannaaw bi mu sante yàlla euh, jaajëfal mbooleem jullit yi ci taxawaay bi waaye daf ñoo delloowaat ci diine xam la ne ak taalibe nañ góorgóorlu ci ak taalibe ndax dëgg-dëgg taalibe mooy dëgg-dëgg julit loolu yaakaar naa bind bu am solo la mooy kon mooy wane ne bala ngaa nekkub taalibe da ngay nekk ab jullit d'abord te it boo wàccoog charte yi la lislaam sant ci say wareef ak ndigali borom bi moytu ay tereem mooy tax nga nekk dëgg-dëggi taalibe ndax loolu moo taxoon sëriñ bi ñëw bil Moustapha nawaytumaa yu jaddidu sunnatahul garra wa inni ahmadu déclaration bi sëñ bi def sëñ bi sosul dafa sof maanaam dafa ñëw yeesal diine yonent bi salaay salaam woote ci nag woote googu mu ci woote nag moo tax ba képp koo xam ne doon nga taalibib sëriñ bi bu dëggal yaay doon jullit bi nga xamante ni yaay ngën ji jullit kon loolu lu mat a bàyyi xel la loo xamante ni ñëpp war nañ cee jàngatee gën a góorgóorluwaat ci jaamu yàlla yi san sëñ bi wax na ko nee nañ gën a góorgóorluwaat ci jaamu yàlla yi bu baax a baax wattandiku tere yi waaw mooy tax ñu am li ñu bëgg lépp waaw bu ko defee rek dañuy daal di bootu ci ginnaaw sëriñ bi loolu mooy njàngatub nañ góorgóorlu ci julli yi nañ góorgóorlu ci woor yi nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla yi waaye tam am na leneen loo xam ne bool na ko ci nañ sàmm suñu diggante te di ko rafetal loolu nag mooy al islaahu saatil bayne te mooy al ihsaan ci biir ihsaan lay dugg al imaanu wal islaamu wal ihsaan ihsaan nag mooy suñu diggante ñun ñi nga xamante ne ay jullit lañ nañ koy rafetal di wattandiku ay àq di jëflante jëflante bu rafet di yéenante jàmm lu waaye yéene euh, moromam na fekk mu yéene ko boppam ba noppi lépp loo xamante ni boo ko nattoon ci sa jëmm xeeb ko waroo ko teg sa moroomu jullit kon daal discours bi Sëñ Blaat gàtt na waaye mënoon nañ cee jël fii ba déwén yaakaar na mën nañ cee jël ay bind yoo xamante ni mën nañ ko yóbbuloo kon yàlla na yàlla def daal ñu ñoo am ay euh, noppi dégg te li ñu dégg mën koo jëfee te yàggal fi Cheikh Mouhamadoul Mountakha bu baax a baax a baax a baax ba mu àggale naal yi nga xam ne naal na ko moom njabootu Cheikhul Khadim gépp jërëjëf ñi ngi jaajëfal mbooleem euh, téléspectateur u Rafah TV ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma Oustaz Abdoulaye Diop ci euh, leeral yooyu nga xamante ni leeral nga ko ni nga ko waxee ci njëlbeen gi rek discours la boo xamante bokk na ci discours yi nga xamante war nañ cee a taxaw seetlu jàngat ci bu baax ndax daf ñuy delloowaat ci dëgg-dëgg diine waaye daf ñuy delloowaat tam ci dëgg-dëgg ak taalibe te xam nga nag taalibe mun ta rafet te nekk ko dëgg-dëgg ab jullit kun muminan wa musliman wa muhsina in rumta sayran tuhsina kon euh, ñi ngi sant ko bii di Rafa TV waaye ñu ànd itam ak euh, Tawfekh Production di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci àndandoo gi waaye ci euh, wóolul ki di eh, sant itam bu baax suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal waa technique bi waaye eh, Serigne Guédé Serigne Guédé eh, Sarr moom itam ñu ngi koy sant baax di suñu naataangoo nekk ca Tawfekh Production Serigne Guédé sëñ bi def na discours am discours boo xamante ni ginnaaw julli lañ ko amal gis nañu ne gàtt na mhm. gàtt na waaye xayrul kalaam yi maa la wa dal la mhm. tënk na rafetal suñu diine mhm. waaye tënk am na yu bëri bëri yoo xamante ni mi ngi ci biir ci ñaari baat rek ñaar yu gàtt rek sëñ Guédé lan nga ñu mën a indilaatal ci discours boobu nga xamante ni Cheikh Ahmadou Mountakha def na ko ah, jërëjëf ah, jërëjëf Cheikh Abdoul ñoo lay sant baax di la gërëm tey ndokkeel jullit ñëpp ci kaddu yu tedd yi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha al xalifatul li tariqa li yëkkati na ko fi waaye sëñ Abdoul Ahad kaddu yi li ci dafa gàtt waaye solo gi foo ko takk li ci njëkk mooy soññu nit gi muy gi mu soññu nit ñi ci ñu gën a fonk seenu taalibe ndax ak taalibe définition bu gàtt la am mooy jullit xaqan rek waa sëñ Mountakha man yaakaar naa bi ma ko mujjee gis ak léegi euh, bu defee fukki fan ak juróom ci la yem sëñ Chouaï bu Mountakha ñoo ànd biñ ñëwee fekk am nuur daari bu ma bind di ko jox waaye bi ma noppee dama ne ko Mbàkke du ma la du ma du ma wax nga ñaanal ma dara dama bëgg nga tànnal ma rek loo ma ñaanal baax na mu ne ma li ma lay ñaanal mooy nga sax ci ak taalibe sax ci sëriñ bi kon moom loolu lu gëm la ku ko fekk boo wéetee moom loola bu nee ci mbooloo mi loolu lay wax loolu la gëm ndax xam na ne mooy définition bi gàtt bi waaw mooy dëgg moom lu ñuy dund la te te ñëpp nag dañ ko cee war a wuy si ndax sonn na ci woote bi wootee na ko nu ne benn discours am la kon nag am li am solo daal mooy ñu si ko ci mm. waaw man daal si Abdoulaye ci sant gi ñu a sant suñu koo jàppee mbir mu kawe kawe moo xam ne man Serigne Mountakha ci moom lay jàngee ni ma war a jàppee Serigne Touba ndax ci dimension bi mu ko teg dafa dafa dafa yéeg boo ko ci jéemee roy sax xëñ na da am dara ci sëriñ bi moom sëñ tubaa dégg nga ci ay biiri yi kàddoom yàgg noo wax sëñ tubaa ñëwul kenn ci boromam moom xam sëñ tubaa doon gi mu doon xejj boromam moom da koy véhiculer message boobu daf koo ñor foo ko nag jullit ñi ñëpp wuyu ko si moom Sëriñ Tuubaa jàppee wu ko ab sëriñu tariqa wala sëriñu wirde waaye daf koo jàppale koo xam ne dafa ñëw iraasatan lil alamin mhm. waaw xettali mindeef waaw man daal loolu laa ci am sëñ Muntaxa nag moom xam nga moom euh, tabarkallaaw xam naa ne di sant mbokk yëpp rek moom ma ciy wax sax daanaka la yàlla xam doy na wa salaam ñu tàgg euh, nga xamante ni ñooy suñu ay mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñi ànd ak Tawfekh Production ak Rafah TV ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ah. di sant yit nag sama oustaz